ñaar fukk Ibrahima ak Ismaïl salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla boroom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am na nu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub am na léegi ñaari jàng ba ñu tàmbalee gëstu ci mbind mu sell mi ci mbirum yonent yàlla Ibrahima ci bu jëkk Ibrahima tuddul woon Ibrahima waaye Abraham waaye ci sunu njàngum tey dinanu gis lu tax yàlla soppi turu Abraham mu nekk Ibrahima tey indi na nu nekkale bu tiis bi wone ni Ibrahima defe woon lu neexul yàlla am na ñuy xalaat ne yonent yàlla yi mësuñu def baakaar mukk waaye kàddug yàlla nee na ñépp yem fa kanam yàlla ñépp a baakaar te sunu waxee ne defunu baakaar teg nanu yàlla kuy tebbi waxam te kàddoom duggagul ci sunu xol gisoon nanu ba noppi ni baakaaru aadama lawe ba ci nit ñépp mag ndaw góor jigéen yéeféer ak yonent kenn nit rekk a takkul woon ci baakaaru aadama mooy ramukat bu sell bi yàlla yónni ngir musal baakaarkat yi mënula def baakaar ndax ce ci kaw la jóge ci jataayu yàlla aji sell ci musalkatu àddina si judduwul woon ci góor ni yeneen doomi aadama yi wante ci janq ci kàttanu yàlla looloo tax mu yeyoo woon deewal baakaarkat yi moom mi jub ngir ñi jubadi ngir yóbbu leen fa yàlla ci sunu njàng bi weesu nag gisoon nanu ni yàlla diggee woon barkeel abraham def ko baayu xeet wu yaa wu ramukat bi naroon a soqi ko wante abraham di ko màggat moom ak jabaram te amuñu jenn doom waaye loolu taxul la abraham siki sàkk ci waxu yàlla wante tey ji dinañu gis ne fukki at gannaaw ba yàlla jëkkee dige def ak abraham xeet wu bees abraham doon na fexe dimbali yàlla ngir amal li mu ko digoon wante li abraham defoon ci ñàkk mu ñëm juróon na jafe-jafe ak tiis ci dundam léegi nag nanu jëm kanam ci tawret ba gis ni abraham jëfewoon ngir fexe am doom ji ko yàlla digoon nu ngi jàng ci saar fukk ak juróom benn ci téereb njalbeen ga mbind mi yi amul woon doom ci jëkkëram abram te fekk amoon na jaam bu juddoo misra te tudd ajara saray ne abram déglul ma wax la aji sax ji deful ma am doom kon nag maa ngi lay ñaan nga dem ci sama jaam bi ndax yàlla def mu jural ma doom abram nag dégg waxu yi loolu amoon na gannaaw ba abram dëkkee fukki at ci réewum kanaan saray daldi jël jaamam ajara jox ko abraham jëkkëram ngir mu àndak moom noonu abraham dem ca ajara mu daldi ëmb ajara nag bi mu yëgee ëmb bi mu daldi xeeb sangam sarayi kon sara sarayi daldi wax abraham ne ko tooñ gi ma ajara tooñ yaa ko yóbbe jox naa la sama jaam ngir nga dem ci moom waaye bi mu yëgee ëmb bi daf ma xeeb na aji sax ji àtte sama diggante ak yow abraham tontu saray ne ko sa jaama ngi ci say loxo def ko lu la neex saray nag daldi ko toroxol ba ajara daw fu sore noonu gis nanu ni bàkkaaru abraham jure wextan ak ay ci këram saray dafa iñaanoon ndax li ajara ëmb te ajara mere saray mi ko doon sonal ba tax mu daw ko noonu mbind mi neena ba ajara dawee sarayi malaakam aji sax ji gis ko ci wetu benn mbënn ca mànding ma mu ne ko yow ajara jaamu yi foo bàyyi ko nii ak foo jëm mu wuyu ko ne ko damay daw ngir sore sama sang sarayi malaakam aji sax ji ne ko dellul ci sa sang te nga yem ci loxoom mu waxaat ko ne dinaa yokk saw askan lool ba mu nekk mbooloo mu jéggi dayoo mu tegaat ca ne léegi jigéenu biir nga te dinga jur doom ju góor nanga ko tudde ismaayil la ndax aji sax ji dégg na saw naqar la moomu nag dina nekk ci biir nit ñi mel ni mbaam sëf mu amul boroom ca àll ba dina bañ ñépp ñépp bañ ko te dina sore mbokkam yépp noonu ajara dellu woon na ci sarayi sangam ni ko ko malaakam yàlla ma waxe woon ba loolu amee ajara daldi jural abraham doom ju góor abraham tudde doom ja ismaila fekk ba ajara ajaray jur ismaila abraham a ngi amoon juróom ñett fukk ak juróom benn ci at noonu la ismaila juddoo moom mi di baayu naar yépp wante ismaila du doom ji yàlla digoon abraham yéene ju rafet yàlla amoon ngir def xeet wu bees ak abraham soppeekuwul woon yàlla yàkkamtiwul ni nit wante dina def lépp li mu dige lu mu yéex yéex ci sunu xalaat noonu diirub fukki at ak ñett gannaaw juddub ismaila yàlla ne pat waxul abraham dara waaye am bés yàlla waxaat ak moom nanu jàng kon ci saar fukk ak juróom ñaar ba xam li yàlla wax abraham gannaaw diir bu yàgg boobu li nu ciy jàng lu neex la mbind mi nee na ba abraham amee juróom ñeent fukki at ak juróom ñeent am bés aji sax ji feeñu ko ne ko man ma yàlla mi mën lépp doxal ci sama kanam te nga mat sëkk dinaa feddali sama kóllëre ak yow yokk la bu baax ba mu ko déggee abraham daldi sujjóot yàlla daldi wax ak moom ne ko man sama kóllëre mu ngi ak yow dinga nekk baayu xeet yu bare saw tur dootul nekk abraham waaye ibrahima ndax dinaa la def nga nekk baayu xeet yu bare dinaa def ci yow njaboot gu sakkan génne ci yow ay xeet aki buur yàlla ne ko dinaa feddali sama kóllëre faaw dinaa nekk sa yàlla yow ak sa askan dinaa leen jox réew mi nga nekk léegi di ab doxandéem muy réewum kanaan mépp ngir ngeen moom ko ba faw te dinaa nekk seen yàlla gannaaw loolu yàlla waxaatoon na Ibrahima ne ko yow nag nanga sàmm sama kóllëre yow ak sa askan say sët ba ci say sëtaat kóllëre gi ma fas ak yow ngir nga sàmm ko yow ak sa askan mooy lii góor gu nekk ci yéen war naa xaraf xaraf mooy màndarga kóllëre googu ma fas ak yow xale bu góor bu am juróom ñetti fan war naa xaraf ba loolu amee yàlla daldi waxaat ak ibrahima ne ko sa turu jabar dootul nekk yi waante saara dinaa ko barkeel jox leen doom waaw dina ko barkeel ba mu nekk yaayu xeet yu bare tey buur sax dinañu génn ci moom bi ibrahima déggee loolu mu daldi sujoot ree laaj ci xolam ndax góorug téeméeri at dina mën a am doom ndax saara mi am juróom ñeent fukki at dina mën a tee am doom ibrahima daldi tontu yàlla ne ko tee nga saxal ismaila ci sa kanam yàlla ne ko ci lu wér saara sa jabar dina am doom ju góor ci yow te nga tudde ko isaaxa ci moom lay feddale sama kolëre mu nekk kolëre faaw ngir askanam ci lu jëm ci ismail nangul naa la dina ko barkeel jox ko njaboot gu sakkan yokk ko bu baax dina jur fukki kilifa ak ñaar yu mag te ma génne ci moom it xeet wu yaa waaye sama kóllëre ak isaaxa laa koy feddali isaaxa mi saara di jur bu waxtu wi dellu see déwén fii lanu wara tey ci sunu njàngum mbind mi gis nanu ni ibrahima dégge woon waxu jabaram ba ànd ak ajara jaamam li abraham defoon tooñ la te doom ji juddoo ci moom ak ajara di ismaila jotewul woon dara ak yéene ji yàlla amoon ngir def ak abraham xeet wu bees wi nara barkeel xeeti àddina yépp wante ñàkk kóllëreg nit mënula fànq rekk yàlla noonu ba abraham amee juróom ñeent fukki at ak juróom ñeent yàlla feeñuwaat ko di feddali li mu ko digoon bu yàgg mu ne ko man may yàlla mi mën lépp dinga nekk baayu xeet yu bare saw tur dootu nekk abraham wante ibrahima ndax dinaa la def nga nekk baayu xeet wu bare ci yéeneem ju rafet la yàlla soppe turu abraham mu nekk ibrahima li tekk baayu nit ñu bare te itam yàlla soppi woon na turu yi mu nekk saara li tekki doomu buur am na fi lu neex lool ñaari màggat lanu xool yu amul seen doomu bopp di abraham ak saray te léegi yàlla jox na leen tur yu bees ngir yëgle li ñu a nekki abraham tudd ibrahima li tekki baay yu ñu bare te saray tudd saara maanaam doomu buur ndaxte yàlla fas na yéene may leen doom ak xeet wu bees ci doom jooju te ci xeet woowu la buur yu bare ak yonent yu bare war a ko ak ci mujj ga musalkatu àddina si ci dëgg-dëgg yàlla aji sax ji màgg la te yelloo ndam ba faaw fàttewul li mu digoon ibrahima bu yàgg léegi nag lan la ibrahima defoon bi mu déggee yàlla digaat ko doom ci seenu màggat mbind mi nee bi ibrahima déggee loolu mu daldi sujoot ree laaj ci xolam ndax góorug téeméeri at dina mën a am doom ndax saara mi am juróom ñeent fukki at dina mën a te am doom ibrahima reewoon na wante ngëma di taxul bànneexa ko waraloon noonu mbind mi nee na ibrahima dafa jàppoon ci ngëmam di yaakaar fekk bunti yaakaar yépp tëju moo tax mu nekk baayu xeet yu bare ni ko mbind mi waxe ne noonu la sa askan di meli mu xool yaramam xam ne dee rekk ko dese ndax mi ngi tollu woon ci lu mat téeméeri at waaye ba tey ngëmam wàññeekuwul mu xam it ne saara mënatula ëmb waaye loolu taxul ngëma di jàpp ko ba muy werante ci waxu yàlla ngëmam sax di gën a dëgër mu daldi sant yàlla mu wóor ko ne loolu ko yàlla dig yàlla mën na koo def moo tax yàlla jagleel na ibrahima njub wante Ibrahima bëggoon na xam luy xew ak Ismaël doomu ajara jaamam bi yàlla tontu ko ne ci lu jëm ci Ismaël dina ko barkeel jox ko njaboot gu sakkan yokk ko bu baax wante ci lu wér saara sa jabar dina am doom ju góor ci yow te nga tudde ko isaaxa ci moom lay feddale sama kóllëre mu nekk kóllëre faw ngir askanam noonu yàlla woon na ibrahima ne yonent yàlla yi aramukat ramukat bi ci boppam ñu ngi war a jaar ci askanu isaaxa ci coobarek yàlla nag ci njàng mi di ñëw dinanu gis ni aji sax ji maye woon ibrahima ak saara doom namu leen ko dige woon tembe ci lu wóor yàlla kuy sàmm kóllëre la li mu dige woon moom lay def dara tëwu ko déglu leen aaya yu rafet yii nekk ci linjil bu sell bi xelum yàlla ni mu xóote ak xam-xamam ni mu baree ba raw xelum nit kan moo muus ba xam dogalam wala nga am xel ba nànd ay jëfam ana ku xam xalaatu borom bi ku ko doon digal ku ko mësa jox dara ba mu war laa delloo ndax ci moom la lépp sosoo ci moom la lépp di jaar ci moom la lépp di dellu moo yelloo ndam ba faw amin jërëjëf ci déglu bi nu ngi tollu tey ci sunu ñaar fukkeelu njàng te di leen fàttale ne dajale nanu émission yépp ci ay kaset su fekkee ne bëgg ngeen leen a am ngir dégluwaat li nu jàngoogum mën ngeen nu bind te dina nu leen wax naka ngeen mën a def ngir am leen sunu adarees mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 saint leen yàlla barkeel te ngeen xalaatandi ci li mi tekki sunu ko ñàkkee kóllëre yàlla moom dina sax ci kóllëreem ndax mënula weddi boppam